Euh, Ibrahim Sakho Gueye de secrétaire coordination de bu aussi vice-président COSCAS section Tivaouane aussi secrétaire au niveau national de la commission sociale bu daayiratul Moxtafina à Asaril à Ajdar di di itam euh, di euh, c'est une activité nationale bo xamni dañ ko inscrire ci programme d'activité du daayiratul muxtafina waye ren jii particularité biñu am moy euh, organisation bi dañu ko ak section COSCAS bu Tiawone and ko itam ak ko itam ak la Croix Rouge et ko itam ak euh, l'association nationale des donneurs de sang bénévoles du Sénégal tey le muy samedi 16 septembre 2023 Euh, mu nekk jour boo xam ni dafay marqué euh, un tournant décisif ci ni ñu fas yéene di maye deret incha allah. waaw maye deret moom nit ñi suñu déggee maye deret rek seen fit dafay tëf tëfi rawatina nag sekkeen yi ak njaween yi waaye dañuy dégg naa ñuy wax naan ku juddu rek am nga boru deret ku juddu rek am nga boru deret li tax ñu war a maye deret nag euh, lu baree bari la ndax bokk na ci boo demee hôpital maternité dañ koy soxla souvent.

kon vous tay bu dérèt nga soxla dem ci banque de sang bi amul amul dérèt lolu su wax parce que su qui bakkanu doomu adama mom moy nek en jeu loolu moom moo tax nag yàlla en wa taala bakkanu doomu adama gënal ko lu ko ñongal gënal ko lepp motax nous ñun itam ñu jël maye dérèt def ko suñu itte def ko suñu farata. fi mu activité bi buñu génné ci bu tay bi fi ba gamu gi inshallah fi ba burdu képp ku bëgg maye da ngay dem hôpital ndax dispositif bi mi ngi bii dafa nekk journée boo xam ni dafa dajale ñëpp rek mais dafay ku mënul ñëw samedi euh, du lundi au vendredi incha allah boo demee hôpital Mame Abdou Aziz Sy baax mën nga dem mën nga dem foofu ñu defaral le prélèvement mais bi li ci gën a am solo itam mooy méngoo gi mu méngoo ak euh, temu euh, gàmmu Tiwaawan gi ndax ku nekk xam na ni guddi yonent bi la ñuy màggal sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi moo moo gën ñëpp waaye itam tabarakallaahu Euh, bëgg doomu aadama am yërmande ginnaaw bi yàlla amee yërmande ci ñun seen yërmande ëpp yërmande yëpp kon nag ñun euh, lu ñu mën a def lu ñu mën a def ngir doomu aadama yi seen bakkan yi ñoŋ ci loolu lañuy nekk wuutu ci suñuy kilifa ndax jaadu woon na ba la ñuy wax dara ñu nuyu leen sant leen euh, jëkke ko ci kilifa xadara bi Serigne Babacar Sy Mansour mu wàcc ci ay rakkam yëpp. waaye nuyu nag suñu kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo séq daayira yi ñu nekk bu ñu ci jëlee suñu pap Serigne Baye Abdoul Aziz mat na sëkk waaye euh, doomam Serigne euh, Moustapha Sy Al Amine bu ñu ko jëlee itam mu yóbbaale ndaw ñëpp ñu ci seen ndigal ci la defee lii nuy def ndax dañoo tënku ci biir ay euh, daayira yoo xamante ni lii ci seen i mission la bokk mm-hmm. ñoom am nañu yéene wax waaye nag wax bi mu mu sax mu nekk soppaliku jëf njaboot moo koy taxawee. loolu moo waral ngeen gis ñii ngeen gis tabaarakallaahu waaye di sant nag hôpital Mame Abdou Aziz Sy baax bu baax rawatina la docteur Sakho bi nga xam ni moo jiite le laboratoire. parce que ñoom euh, bu ñu xoolee ci ñoom rek lu ñu def xeeb ko ndax ñun dañuy tëdd di nelaw te ñoom du ñu nelaw ndax heure bu ne lañ leen di fëgg ñu ni ah urgence am na nañ dem uti deret te nangoo naa ci docteur Sakho mu ni boo génnee cees ba ba ngay dem Louga benn banque de sang moo ne ci diggante bi moy wu Tiwaawan kon ñun ndawu Tiwaawan c'est un devoir devoir la ci ñun farata la ci ñun mboolem ku dégg fi lii fii nuy waxe bu nu nee mayee deret am na bu génnee sax Tiwaawan demal nga maye ji deret ndax bu ñu la nee diggante Thiès ba Louga boo génnee banque de sang bu Tiwaawan amaatul beneen kon ñun farata lay doon foo fëggee banque de sang bu Tiwaawan fekk fa moom deret